bi iyaa yëgee tiis bi dafa jël contact ak ministère bi ñu wooma ma message bi noonu laa ko transféré président de la république ak le premier ministre président ñoom ñaar ñëpp dañ ko liir rek delloo ma message ne ma fan laa toll ci taxawaay bi ak samay service ma ne ko maa ngi jokkalante service bi IA ak IEF ak gouverneur ak préfet ak sous préfet ñoom ñëpp ak le maire ñu ngi jokkalante famille bi ñu koy yëg xaw na tardé te tey xam ngeen ne mooy premier conseil des ministres bu gouvernement bu bees bi man mën na nekk sax dama waroon dem France mais premier conseil des ministres bi kenn du ko tardé dafa am lu bari lu muy signifié moo tax président ne ma bu conseil des ministres bi pare rek nga bàyyi lépp nga dem wuutu fa wuutu ma wuutu ko fa moom wuutu fi premier ministre ak le gouvernement eggale njaal seen njaal ak njaalu askan wi yëpp tiis bi dëgg la yéen ko moom yéen la gën a metti yéen parce que sa doom yeewu dem jàngi école lii dal ko fa lu metti la en tout cas ñu ngi leen di massawu président di leen ne nañ leen massawu ñu ñaanal leen mu ne ma boo demee da nga leen wax ne askan wi yëpp Sénégal yëpp lii metti na leen tey defe naa information bi tey la gën a génn mais tey Sénégal yëpp leen metti la te ni mu demee ah warul woon demee noonu loolu moom jàpp nañ ko ni mu demee warul woon demee noonu gouvernement bi nag dina jël matuwaayam yëpp dina ci taxaw ba lépp li nga xam ne yoon moom la laaj ñu def ko ci parce que lii réew attanu ko xol nit attanu ko am na ñu wax ne ay xale ñooy dawal di xëccoo mais gouvernement bi dina ci taxaw lii dinañ jël sanction yi ci war yëpp pour parce que lii warul am warul am tali bi amul problème ci biir dëkk la jaar def nañu ay doodaan xa muy romb école te sante xale yi lii warul am warul am amul responsabilité oto bi dafa paan amul benn responsabilité bu dawul woon bu baax ñuy course parce que ñaari oto di course ci biir dëkk oto yoo nga xam ne lu mu laal mu yàqu loolu kenn du ko nangu Sénégal du ko nangu gouvernement bi nag taxaw en tout cas ñu ngi leen di masawu yéen ñëpp ah dina yàlla na ko yàlla yàlla na leen yàlla wuutu yàlla na leen yàlla def que am li nga xam ne dinañ ci mu dinañ ci mën a muñ parce que muñ rek lañ dese ñu ne jullit lañu lu ñu yàlla teg ñu nangu ko wante metti na mais nag nañ ko muñ rek. yéen xale yi nag seen taxawaay ñu koy rafet lu bu baax parce que c'est vrai que bu ngeen defoon comme ñeneen ñi ni ñuy def beneen musiba lay jur rek mais mun naa leen garantir ne si seen taxawaay dina tax gouvernement bi dina taxaw ci nu mu war a taxawe nga xam ne comme yoon comme wan ngeen ne yéen lépp bàyyi ngeen ko ci loxo yàlla ak ci loxo yoon. donc yoon dinañ taxaw en tout cas ministre de l' nationale dina nekk ci wetu xale yi ci wetu famille yi xool lépp lu nga xam ne war nañ ko ci ci jàppale ak ci taxawaay gouvernement bi yëpp ministre yëpp dinañ leen wax ministre de l' intérieur ministre des forces armées s'il le faut ministre de la justice euh, ministre de la santé may dellu ci tamit di ñaanal xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk hôpital foofu nga xam ne dañoo am say gaañu gaañu loolu tamit lu metti la xam naa bu ma jógee fii man ak délégation yi dañuy dem bu hôpital bu fekkee am na ñu fa nekk ñu ñëw massawu leen en tout cas mën naa am kàddu du gi du yeggali yëpp mais mën naa leen wax ne tey conseil des ministres bañ ko fa waxee ah mett bu mett la d'ailleurs tey bu ngeen dégloo communiqué conseil des ministres président dans ci communication am wax na ci jaale ci ci turu askan wi yëpp en tout cas maa ngi leen di jaal di leen masawu di leen masawu bu baax a baax di leen nag dinaa di leen wax ne nag man ak iyaa ak gouverneur bi euh, préfet ak ñëpp ñu ngi seen wet di ànd ak yéen ci lépp ak le maire. monsieur le ministre yow amuñu sa fay parce que amoon nga raison yu bëri yu tax tey boo ñëwuloon it ñi nga yónni dinañ lay comprendre. parce que ku xam sa agenda tey nga am conseil des ministres dëgg-dëgg amoon nga excuse pour ba ñu ñëw fii lii nag dafay wane sa oyof ak sa taxawaay à côté du président Macky Sall mais sa taxawaay ci Sénégal man personnellement xam naa la côtoyé naa la ànd ak na ak yow ay mission yu bëri vous êtes un grand frère vraiment un ministre humble travailleur am fit am fulla am fayda valeur yooyu nag ñu gis ci yow moo tax ñun ñii ñuy roy ci yow donc monsieur le ministre xamal ni ci kàddu waa Tassette Pël yëpp waa commune bi yëpp ñun de kontaan nañ tey de douleur bi ni mu metti metti metti indi nga soulagement bu rëy rëy rëy certes metti na ñëpp wax nañ ko parce que taset pël benn say la fii ñëpp àndandoo di xàccandoo di dóorandoo rawatina nag ci biir village bi benn lañu donc tiis yu fi nekk ñu ngi la koy jaale parce que say élèves lañu xale yi nekk fii taset pël xamuñu lu dul jàng am fulla am fayda kenn xamu leen ci lenn affaire u maa ngi wax témoin commune bi yëpp a ngi fi 51 villages ñoo fi nekk ak 67 amoon waaye xamewuñu waa taseet pël lu dul liggéey jaamu yàlla xale yi nu ngoo jàng defe naa taux de réussite bu ñëwee dëkk bi moo ci ëppale parce que dañ leen di namp nampatal ci alxuraan bu ñu paree yóbbu leen école waaye continuer di leen jàngal alxuraanul karim donc dëkk bi dëkk bu sell la dëkk boo xamante ni nit ñi ñu gëm yàlla lañu moo tax lépp dañ ko delloo ci borom bi subhanahu wa partenaires yi nga xamante ni ñoo moomoon tracteur bi ak xale ba fa muy liggéey ñëw na fi tey vraiment waxtaan nañ ñoom aussi tey jox nañ leen aussi ay instructions ferm parce que nee nañ leen il faut ngeen di éduquer ak di Euh, def ay renforcement de capacité ak di waxtaan ak seen personnel yi parce que souvent boo dee xool tracteurs yi ay xale rek ñoo koy dawal donc euh, interpellé naa wax naa leen ko ni leen commandant ak ñi ñëpp dinañ ci wax pour que vraiment ñi ngeen di jox machines yi parce que machine yi ay malaaka lañu la preuve démb dañ ni ñaari tracteur ñoo doon jëkkante xam nga loolu mag du ko def fekk xale yoo xamante ni dañoo jàng ba wàcc 14h30 nekku na ci kaw tali bi li am am donc loolu ndogalu yàlla la waaye dañ koy déplorer ñoom it ils ont pris acte ni dinañu xoolaat seen personnel bi ak waxtaan ak ñoom parce que fii accident bu mel ni moom musu fi am camion yooyu nag yenn saa yi ñu def fi ay dégâts ndax lan li ma leen wax rek ay xale ñoo koy yor donc loolu aussi ñu war ci def matuwaay parce que Tassette pël boo xoolee dëkk yëpp dañ ne ci kaw tali goudron bi fii accident bi amee sax am na doo daan waaye daa ñëw maasale doo daan bi donc daal vraiment euh, metti na monsieur le ministre waaye li mu metti woon yëpp wàcce nga lu bare bare bare bari ci mettiwaay bi wàcce nga lu bari ci coono bi donc ñu ngi lay sant. depuis démb dañoo dund loo xam ne ci histoire taset fii mosu fee am ci lima yaakaar ndax ñun nee nañu amul ci lu ñu fàttaliku waaye suñu mag ñi tamit mooy suñu papa yi ak suñu maam yi nee nañ ñoom tamit ci seen fàttaliku loolu mosu fee am. muy mbir mu metti moo xam ne démb tiim sa ñetti doom robandoo leen ci benn instant boo xam ne dañoo jógoon di sàkku ji xam-xam yàlla def ñëwaatuñ ci seen kër ñu rob leen ci anam boo xam ne anam bu méttee métti la mu nekk loo xam ne lu ñu tiis la. Euh, ñu sentir ci nag benn mbir moo xam ne mënuñ ñàkk di ko wax ndax sànq dafa am oustaz lu mu wax am lu chef de village wax ñoom nag ci loolu la ñu teete moo tax li xew yëpp xew mooy que ne gis nañu mbir mi bi mu amee dal bi nga xam ne moom la nit ñi am ndax lii am na dëkk yoo xam ne bu doon fala amoon boo laajtee ana chauffeur ba duñ la wax mu ngi gendarmerie kon feneen lañ lay wax la nekk xale yi mënoon nañoo taal mënoon nañoo yëkkati ay jaas daw gor yi mënoon nañoo def yeneen ak yeneen mais gis nañ loolu lépp amul kon loolu yar la bi nga xam ne moom la ñuy yar ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi waaye nag ñi nekk ci dëkk bi nee nañu dañoo sonn ndax affaire bi dafa metti te lii nii nekkul bi yoon rek la mu a am diggante boobu matul 100 lu matul 100 loolu lii mooy troisième fois accident mortel di fa am te accident mortel bi bii moo ci gën a metti mais amoon na fi amaat fi ndax suñu maam Amadou Gunda Ka ba léegi ñu ngi koy jooy noppee ko foofu la ko oto mbëkkee woon ci distance boobu la euh, suñu frère suñu xarit ñu yarandoo ak moom màggandoo ak moom Sama Ndiaye fu oto mbëkkee woon daaw moo tey mu ñàkk bakkanam ren jii ñu mbëkkaat fa suñu ñetti xale ñu ñàkk seen bakkan te ba pare dañuy sentir ci biir accident yi am dañuy gis càggante yoo xam ne da ciy am te càggante yooyu li ñu bëgg monsieur le maire nañu dimbali ngir yàlla càggante yooyu nañ ko saafara fii li nga xam ne loolu la ñuy gis fii mooy dañuy gis machine yi à chaque fois dañuy jaar fii daw ay xël yu metti machine yoo xam ne kenn du am cortège du am euh, kenn kenn du am du am dara lu leen accompagner te dama yaakaar ne machine ci sécurité routière bu man en tant que conducteur professionnel ma def formation professionnelle si sécurité routière bokk na ci machine warul daw ci biir dëkk sans convoyeur kon machine bu waree jaar ci ab dëkk dañ ko war a convoyer ba mu génn dëkk bi mais diggante Tassette Pël ak Tassette ak ak Tassette centre ak fii nga xam ne fa école bi nekk dañoo gis ne machine dañ fiy jaar te dañuy daw lu bëri te li ëpp heure yi ñu fiy jaar day nekk heure boo xam ne nit ñi dañuy nekk ci rebooru tali bi ñu gis ne bii yoon accident bi am na fi de mais mënoon naa gën a metti ndax ñii dëkk Tassette Ablaye Ndongo xam ngeen ne heure bi élèves yi di wàcc ci CM bi wala heure bi ñu gën a récréation di dem di duggi taset pour ndekki ji wala dara xam ngeen ne bu doon ci période boobu la amoon ay téeméeri téeméeri nit ñoom ñoo fay dee ndax ay ay junni junni nit ñooy toppatali di dugg bi taset bu fekkoon drapage bi ci la amoon kon doon na gën a metti kon ñuy wax monsieur le li ñu bëgg mooy fii machine bu fi jaarati nañ ko convoyé ñoom am nañu mooy mën a dem jël benn 4 x bu seen yi waree déplacé wu 4x4 bi jiitu tracteur bi topp ci su ko defee chauffeur bi dina dawal ak discipline ndax ñun liñ jàng ci sécurité routière mooy dañoo gis sénégale yi affaire de esprit esprit la nit ñi day mel ne seen xel yi kenn du xam lan moom moo ciy nekk te dañoo gis ne bu fekkoon dañ ko organiser woon jiyi yii di am nii yëpp mënoon naa ñàkkaam mais nit ñi tant que gisuñu li leen di sanctionner seen kanam lu leen neex lool la ñuy def mais bu ñu xalaatee ne bu ñu demee lii sanctionné rek loolu mën naa ñàkk kon nag loolu bëgg nañ ngeen jël ci ay mesures bu ndax ñun bëggatuñu suñuy xale ak suñu jur gi di génn fii oto yi di leen fay ay machine di leen fay yooyu yëpp di leen fay kon nag li ñu bëgg mooy loolu nañu dimbali góorgóorlu ci hmm. dimbali ci machine yi bu ñuy jaar fii ñu leen convoyé même yi dem ci carrière yeeg yooyu yëpp gis nañ bu ñu fi jaar kenn du leen convoyé nu leen neex la ñuy dawee loolu nag bëgg nañu ñu gën cee bàyyi xel baax a baax